li nga wax muy dëgg ñun su fekkee li ñuy wax le menu fretin ce qui se passe tout le temps chaque jour ñi ngi tribunal on fait normalement notre travail mais il suffit que ñu wax une affaire day passé rek ñu commencé am problème ñii dañuy dugg ñii ñu dugg gis nañ ko fi ba ñu dem ba ñu ne presse euh, euh, privée du dugg presse publique bi kese mooy dugg mu indi woon fi ay problème yoo xam ne nii mi ngi jóge woon ci secrétaire général bi après on a essayé parce que Sénégal dafa toll foo xam ne en matière de démocratie en matière de liberté d'expression en matière de liberté de la presse dem di wax journaliste warna na yegg fii warul yegg fii foo xam ne nii dañ lay wax ne c'est un lieu public dafay lu ñaaw lo xam ni, nii dañ koo war a seetaat te li ci ñëpp mooy tribunal parce que dañuy wax ne la justice est rendue au nom du peuple sénégalais peuple bi moo tax ñuy joxe justice bi peuple boobu xam nañ ne ñëpp xajuñu ci presse bi mooy doon relais bi kon ñu rafetal ñu ñu ñu ñu yaatal ñu fa day nekk loo xam ne lu am solo loolu rek la ñuy ñaan euh, di ñaawlu tamit bu baax euh, rëq-rëq yi fay am tere yi ak yooyu